docteur mu rafet lool sagal nga ñu dalal ak jàmm nuyul askan wi. salaamaaleykum waa Sénégal. Euh, salaamaaleykum waa plateau bi. di nuyu ñëpp Abdoulaye Deye rek yow ak ñeneen ñëpp. man maa ngi tudd du sàmba nekk médecin. Mhm. Euh, nekk di def spécialisation ci développement industriel du médicament. Mhm. Euh, def executive MBA moom la ñuy wax business administration. ci ISM. Mhm. ba pare tam nekk ci politique bi. d'accord nekk APR di militaire Rufisque. Mhm. si Abdourahmane Seck Omer. d'accord.